suñu mbokk taalibe suñu xarit di Baye Fall di sëñ Ndiaga mu sëriñ Cheikh Fall Baye bu góor di ko xam ni yoon wi ñëpp ko xam ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriidiin làmp muy royuwaay ci ndaw yi ak mag ñi nga xam ni sëñ Cheikh moo leen defaroon muy koo xam ni kenn du jaar ci moom ba loo mën a duut baaraam ci yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine bi ndax wàccoo na ak mag ñi wàccoog ndaw yi masta def lenn lu dul liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine làmp ba ci liggéeyam yu mujj gis ngeen quartier général dafa relancé bu baax yoonu Baye Fall muy loo xamante ni adduna bi yëpp seere nañu taxawaayam ci liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ci alxuraan ak xaside yi ak addis yu wér te teg ko ci lu leer ndax day yoon woo xam ni yoon wu wér a wér la moom la la suñu boroom dogal mu wàcc war a jàkkaarloog sangam bu tedd ba tey te xam ne liggéeyal yàlla rek mooy li gën a wér mooy li gën a wóor ñun ñi fi desandi nag war nañ ci am ñàggat goo xam ni fa nga xam ne fa la ñu maam Cheikh bàyyi woon te mu daan yóbbu mbokki taalibe yi kenn ku ci ne am ci taxawaay boo xam ni war ngaa jàpp ni yow yaay yoon bi rawatina yoonu Baye Fall képp koo xamante ni. da nga wuyoo maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine bisam bii soññ la ci yow ndax bari na ñoo xamante ni de musuñoo jox Baye Ndiaga loxo musuñu koo gis ci bët waaye kenn jiituwu leen fi ndax lam daan liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon ñu ngi ñaan ci dara jëy Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine làmb Cheikh Ibrahima Fall teeru ko teral ko teeruwaale ku bokkal bis donte ñii fi jaar la sax jëm ci armel yi nga xamante ni mooy armelu catholique yi romb giñ fi romb rek ñu ngi ñaan ci barke Cheikh Ibrahima muy seenum jéggal waaw ndax yoon wi attan na ko waaw mbir moom bu fekkee ñu defar rek jëriñu day des waaw moom yërmandeem day jaar ba ci ñi nga xam dañ fay jaar war leen rob yi foo xam ne bokkuñ ci yoon wi mbokk yi def nag kontaan nañ ci lool ndax jeexitalul liggéey la moom de wàcc na moom la ko waroon lépp def na ko waaw ñu ngi koy jaal bu baax nag di ko siyaaree suñu mbokku taalibe bi nga xamante ni mooy sëñ maam Cheikh Diagne bi mu àndaloon keroog ci quartier général bi te bokk jës bul murit muy tu tànk yi nga xamante ni dañuy liggéey ci université Ndar ba ci ndigalu Serigne Cheikh Jëmb Fall ku fi teew rek ñu ngi ñaan Serigne Touba ak bi Ibra faj sa aajo ñu ngi nii nag ci wàccaay bi fas yéene ko yóbbu Touba denc ko ginnaaw tàkkusaan ku ko dégg mbaa nga yëg ko rek na nga ci teew la ca dolli ko incha allah danañ ko jàllale ñu ngi sant ñëpp ñu ñaan ñu dem ci jàmm. fekk jàmm ak siwaat ci jàmm ci barke Seexul Xadim ci barke Serigne Cheikh Jëm Fall doole Serigne Mountakha jërë ngeen jëfati Muntaxa Basiru di ñaan suñu borom dolli ko fi yàggal te ànd ko wér di ko ñaanal suñu Seex Jëmb Faal ñaan suñu borom dolli ko fi yàggal te ànd te di ko ñaanal kilifa yëpp di sant bu baax a baax nag di ñaan suñu kilifa gi nga xam ni wuyu na maam Seex bis ni tey yàlla na suñu borom dolli ngërëmam te tas ñu ci barkeem ñu ngi koy ñaan li nga xam ni tamit yéene woon nañ ko ci jëmmam di eh, kuréelu taxaw bi nga xam ni taxawal nañ ko lu toll ci ñetti weer. bàyyi jiili mii doon jëwriñ ji ba siyaar bi nga xam ni bëggoon nañ ko ko defal jàppoon ko le 22 ak seegut suñu borom dogaloon ni du ko fi fekk waaye day mel ni taxaw bi yëpp dafa tënku bisub tey rek ne leen naa taxaw bi yëpp daal day mel ni taxaw bi bis bii rek moo waraloon taxaw bi kon sant nañ ci bu baax di ñaan suñu borom mi nga xam ni moo yor lépp na dolli ngërëmam fam ne te taas ñu ci barkeem. te dimbali ñu ci liggéeyam bi nga xam ni daana ko liggéeyal maam seex fii ndax naxul benn murit naxul kenn wax dëgg yàlla leeral na fépp dimbali na murit yépp yaatal na liggéey bi soññ na mbokk taalibe yi jari nañu jari nañu nañu ci biir jariñu ci biti kon sant nañ ci bu baax dañ xam ni rek dogal suñu boroom a demee nii ñaan suñu borom defal ñu dégg ko ci kàddoom te topp ay kàddoom te sax ci ba faw di suñ suñu jëwriñ ji bàyyi ji moo tàmbali liggéey bi doon jëwriñ ji kër Baye Ndiaga daawuñ fa géej benn yoon ci tënk daal ñu xam ni suñu borom a dogal lii rek ñu ne ñu góor góorlu ci bu baax di ñaan lam ñu daan soññu daal ñu fexe cee nekk dégg ko te ànd ko te topp ko ba keroog ñu koy fekk ji te di ñaanal sëriñam bu baax bi tu waa Sam ak njaboot seex Cheikh si suñu Cheikh Fall gépp ñu yàgg fi lool te ànd ko wér njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp mbokki taali bi yëpp jërë ngeen jëfati. jërëjëf maa ngi nuyu murid yëpp di nuyu Baye Fall yëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi waaw di koy jaalee suñu suñu suñu Moustapha suñu Abdou Sakkour di ko jaalee suñu Seex jëm di ko jaalee njabootu suñu Abdoulaye Fall Ndar yëpp di ko jaalee njabootu suñ suñ Moul Moussa yëpp waaw ba tamit Touba Sam ñëpp ñu ngi leen koy jaale waaw Bandiaga wax dëgg yàlla def nañ suñ ñun loo bi duñ ko xof duñ ko fàtte ba ilaa yawmi diin waaw defar na ñun loo def moo def si ñun lépp lu nekk si ñun moom moo ko def si ñun waaw kon nag ñun duñ ko fàtte kon liggéey bi ñu bàyyil li ñu ñaan yàlla suñu ñu may ñu doole ak kattan ba ñu continuer ko waaw ci barke sañ Tuubaa waaw noonu lañ koy ñaanee ba di di di jaal Baay Faal yëpp di leen ko jaal waaw di leen wax ni ah, suñu borom moom mooy mooy mooy kun fa yokkun mooy lépp moo am lépp moo sañ lépp moo mën lépp waaw kon du ñu xëccoog moom kon ñu ngi jaale Baay yëpp ak murid yëpp waaw sant nañu bu baax waaw liggéey bi nga xam ne bàyyi nañu ko daal ñu ngi ñaan suñu borom may ñu kattan doole ba ñu eggaleel ko ko si barke Seera jaa ngeen jëf baax tey jiital suñuy kàddu ak siyaar bi sëriñ Muntaxa di kilifay murit yëpp ak sëriñ seex Jëmb faal te leen ñaanal yàgg gu ci kàttanu seex bi barke xasida yi di siyaare mboole murit rek mel ne xew-xew bi ñuy wax loo moom dana dana nu diis lool lool lool waaye nag moom day lu mënta ñàkk di jiital rek di sant suñu borom ndéem lañuy Baay Faal moom xam naa ne sunu baay sori ku ne ci ñun waaye sunu borom mi nga xam ni mooy dogal moom ñi mooñ ci gën a yaay fuuf xëy na nag eh, wax ji dana jafe waaye liñ mën a tënk ci kàddu daal moom képp ku fi teew rek mën nga koo masawu sa moroom ndax amul woon xàjj ak seen ci murit yëpp ku ne la fonkoon ba ci ki nga xam ni ci liñ mën a seere ci ay jotaay ñu bokk ak moom ak leenu xam ci moom bu lay soog a gis tey sax te xam ni sëriñ bi rek la ñor rek na muy jàppe ñoom njëkk xam sax noonu la lay jàppee kon Eh, lii ñuy yëg rek moom la ñu fi teew ñëpp di yëg xëy na kàddu yi day diis waaye liñ ci mën a seeral ci lu néew ci suñu diggan digganteem ak daara jaso Mouride moom eh, ñëpp ku ko xam rek di nga ko xam eh, ba ci li ci gën a siiw muy njukkal li nga xam ni noo ko doon defal di ko doon defal këram at mu jot ci nga xam ne day dëppoog bu at mi matee rek muy décembre buy jeex loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a fees nga xam bu ñu ko tuddee Mouride yëpp xam ko waaye suñuy jëflanteek suñuy mbir moom weesu woon loolu ñun ñi di wax nag euh, mën nañ ni bàyyi la woon ci ñun euh, xarit la woon ci ñun ñun sëriñ la woon ci ñun euh, ba tax na mbir mi daal sant rek lañ ci mën a wax sant sant suñu borom rek ndax lii moom boo déggee ñaa kilifa wàcc na lii mooy wàcc dëgg-dëgg ndax mënuñoo wàññi ñi nga xam ni xam nañu leen ñu wax ni ginnaaw dogalub sunu borom seen nangu ci maam Serigne ci sunu baay la jaare ba ci émission bi ñu mujj def TFM bari na message yooyu xam ne bi nu ko jotee dañ ko ko transféré muy doon ñoo xam ni ci diine ji bokkuñ ci woon waaye moo leen tax a dugg ci diine loolu am na am ñoo xam ni dañuy message anteeg seen xarit yoo xam ne ñoo bokkoon benn classe bu ñuy jàngee di leen jéggalu naan leen man de ba may dinga damaa umpale waaye tey laay soog a xam ni Baye Fall mooy dëgg kon loolu rek bu doon benn nit la doy na mission ndax benn nit boo ko dindee ci réer rek ku ne xam na ne ci yonent yi xëy na xat-xatee da mënuñoo tudd tur waaye am na ko ci woote woon koo xam ne nombre bu ndaw la am ba mel ne di koy lu koy xeeb waaye nit ki moom dangay ngay pexe rek waaye yàlla mooy fëgg dënnu nit ñi di ci dugal ngëm di ci dugal nangu sëriñ bi tool boobu nag da cee bay waar woo xam ne daal mënee su ko misaal joggi na day te waar la woo xam ne dootul fay bu mukk ku dem ci réseaux sociaux yi mbaa ci internet bi di nga ci gis li ñuy wax yëpp kon nu ngi tubaat baax a baax xëy na jotaay bee tax kàddu yi mënta gudd xol yi fees na waaye nag li muy fees yëpp ak cant la ndax Baye Fall moom sañ te métti lu dogalub suñu borom ginnaaw bu ñu demee ci ponk ngëm mi bi ci mujj nangu dogal lay doon moom waaw wéetaay rek ngay kii waaye li ci des yëpp ak cant la ñuy delluwaat lépp suñu borom te am yàqin ci ni day dajeeg sëriñam ma ndax ki nga xam ne dana la li ngay liggéey man la waroon ma wër kër gu nekk fëgg bunt ba xamal leen suñ tubaab Cheikh Ibra waaye mu sas la mission boobu kon kooku moom bu wàccee rek bu àpp baa jot wàcce bi jot kon loolu lañ ci mën a tënk rek kàddu yi nag ñu ngi koy yëkkatil mbokki taalibe yëpp rek ndax ñëpp a bokkoon nuñ meloon ci moom kon yéen itam ci biir ndax jawriñ ji ngeen àndal mooy Mouhamed Fall moom it noonu la meloon ci moom bañ na ko ba boo déggee xibaar bi rek sa xel day am ci ñoo xam ne ci lay njëkk a dem moom jëmmam di ci la bokk kon noo ngi leen di tuubal baax a baax di tubaat kàddu yi jaxasoo geeg lépp rek jërë ngeen jëf